yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi nga koy yoon wi jox ko itam sëriñ bi lépp itam ñu gis ko di ko dund te ñun suñu itte yëpp mooy sëñ bi ci la juddu ci la ñuy dund ci lañuy ñuy faatu ci la ñaan yàlla yitam dekk ci. Euh, kon képp koo xam ne jàpp nga ko di ci yëngu bàyyi ko xel rek faaw ñu di la bàyyi xel boo ko yëgee ak boo ko yëgul yàgg nañu nag di euh, dalal fi euh, liggéey bi itam du caaginu xëy na tey nga ci njëkk a def sa barkeelu am na ay jamono xam naa doo ko fàtte jamono yoo xam ne àndoon nga ak sëñ Ahmadu moom sëñ Moussa Fadil boo xam ne ñëwoon nga keroog ci biir barab bi nga ma woo la ma sëñ Ahmadu woo ñëw nga jox ko ci sa barkeelu bu jëm ci doo koy joxe woon ko ci. loola it nag ba léegi dañ koy jàpp duñ ko fàtte fii moom ñii fi nekk xëy na doonuñu ay yëngukat yi àdduna yu politique wala yu mel waaye nag jëpp njëkk joo xam ne yëkkati na ko jëme ko ci ñoom it duñ ko fàtte te loola it danañ ko jàpp di li ko fàttali ko di la ci ñaanal itam loolu mooy li nga xam ne mooy eh, li fi nekk di santit sa bokk yi nga xam ne ñoo suñu bokk yi nga xam ne ñoom nga fi nekkal di suñuy bokk yu ñu jege suñu mafari mi ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëpp ci liggéey bi di sant itam suñu bokk yi moom it ay bokkam ñoo dëkk si euh, waa Kër Baye Sëñ Jatra ñoo àndoon sos liggéey bi ba mu agsi fii mu toll kon mel na ne ñu nekk yëpp suñuy bokk lañ waaw léegi ndog yi niñ ko waxee mm, bés bu yàlla sàkk nañ fi dogal lu toll ci ñeenti junni nit ak lu topp daanaka juróomi junni nit daal par jour euh, yoo xam ne dañ fi doge ñu ngi doge itam ci li nga xam ne mooy yokk jumaa ji wet yëpp nag. yooyu yëpp genn benn côté lañ ko daan defee mais nit ñi dañoo dem ba ëpp benn côté bi léegi dafa dem ba ba ba wër mu nekk mbooloo mu bari moo xam ne bés bu set danañ fi danañ fi danañ fi doge loolu it dañ ko def ngir jaamoo ko yàlla ak liggéeyale ko sëriñ Touba ñi ngi ko defee itam ci ndigalu sëriñ Saliou waaye ñu ngi ko ànd ak yoon wépp yoon murit wépp ànd itam ak ñi bëgg lu baax ñëpp ndax liggéey la bu rëy financement la bu bari waaye nag bokk yëpp dañ ciy jàpp kenn ku nekk la man rek def ko ci ñu ne ñu féetewoo taxawu bi waaye yemuñ ci taxaw bi rek waaye ñun itam dañuy participer comme ñëpp ndax li ñëpp bëgg tam loolu lañ bëgg waaw euh, bu ko defee nag suñu niñ koy lañ koy laltaayee itam mooy dañuy waajal bu koor gi jub lu mat fanweeri waxtaan yoo xam ne day tënku ci ay thèmes waxtaan yi dañ koy organiser euh, weer wi xam nga fanweeri fan la dañuy am juróom-ñetti fan juróom ñeenti ñeenti euh, bés ci weer wi yoo xam ne ay fatwa lay doon laaj ak tontu moom doon am juróom-ñetti fan yoo xam ne moom it euh, euh, ay duruus lay doon ay bind yoo xam ne dañ koy jàngale def nañ fi bu yàggut lu mel ne naam planté def nañ fi demb lu mel ne da ak ya ca aju da dañ ci def yu mel ne commerce wala nangam wala bépp euh, bind boo xam ne daal laaj na ñu fàttali ko ci yokk julli wàññi julli kañ lay war nangam yooyu yëpp def nañ ko fi barki démb su ko defee dañuy defaat itam ay thèmes yoo xam ne yu ama yu yitteel jamono lay doon lu mel ne bisu tey bii tey jii maanaam ñu ngi def masuliyatul muwatin fii fi ixtiyaaril xaakim maanaam nit ki lan mooy responsabilité am ci mu tan njiit li ko war a jiite waaw lan moo ko war ci tànn njiit li ko war a loolu lu la te ci jamonoom toll nañ ci yeneen tam yi nga xam ne ñooy amaat itam yëpp daanaka yu demee noonu lay doon itam yoo xam ne yu jamono lay doon seet borom xam-xam boo bu bo bo bu xam-xamam ràññiku ànd ak itam mun a ànd ak yar boo xam ne dana mën a waxee fii mu nekk ndax barab bi itam dafa nekk barab boo xam ne euh, du ko jóg man fee wax dañuy dañuy tànne thèmes yi ne la ñuy tànne itam borom xam-xam yi nga xam ne ñooy def waxtaan yi noonu lañ koy organiser bu nga xam ne day am fukki waxtaan ak juróom benn fukki ak euh, euh, juróom juróom am ñeenti fatwa li ci des nekk ay duruus noonu lañ koy organiser ci at at mu loolu daal mooy liggéey bi nga xam ne moo fi am ci koor gi ñu fii di xëy si itam toll nañ ci juróomi téeméeri nit ak juróom fukk yoo xam ne lañ am na équipe yoo xam ne buñ xëy see ñoom ñooy raxas bagages yi am na équipe boo xam ne ñooy waajal ndogo yi li ñuy tàngal li ñuy togg li ñuy seet defar muy lu mel ne junjeer yi bisaab yi ak yu mel noonu am na ñu yore loolu am na ñoo xam ne ñooy lal fi ñuy toog am na ñoo xam ne ñooy teg am na ñoo xam ne ñooy organiser nit ñi pour ñu mën a nekk ci waxtaanukaay bi organiser nit ñi itam pour ñu mën a dugg am ñoo xam ne bu ñu jogee dogee ba noppi ñooy teg bagage yi delloo ko ndànk-ndànk pour ay weer la yu mel noonu dara bañ a toj delloo ko ba fañ ko war a raxase su noppee am na ñu war a lalli foofu raxas foofu bala ñuy nappi la ba mu eggal am na beneen équipe boo xam ne itam sécurité lay doon boo xam ne mooy sécuriser naafile gi noonu lañ ko organiser ba lépp àgg. ñu jàpp ne xëy na loolu itam loo loo loo lu ñu war a xam la te day laaj ku mel ne yow bu ñëwee fu mel nii liñ fiy def ñu leeral ko ko ba mu xam ko ba nga xam ne ëllëg lu ci dégg dana xam ne lii mooy la nekk ci barab kon lii lañ fiy def ci weeru koor gi jotewul dara nag ak euh, wàllu ceet gi nga xam ne yoroon nañ ko saa bu ñu xëyee bis bu yàlla sakk am nañu war a xëy bala jumaa ji ba mu set wet ñu raxas ko ba mu set wet ci kul la yow mi amul bés boo xam ne amul équipe bu dul xëy bis bu ne rek am na boo raxas si bu ñëwee dañuy raxas ba set dañuy bale ba mu set ñu raxas lépp ba ag loolu jotewul dara ak ndog yi ñooñu moom bokkut ak ñiy xëy si ci wàllu ndog yi ak eh, yu mel noonu maanaam teywul liggéey bi daal liggéey bi nga xam ne moo fi nekkoon ñu dox teywul it comme julli àjjuma gi ñi ko war a organiser comme ni nga ko fekkee tey ji ñi ko war a organiser itam loolu jotewul dara ak ndog yi waaw jotewul dara itam ak yeneen liggéey yi nga xam ne itam mi ngi ci aju eh, comme niñ ko waxee woon léegi ci ci secteurs yi nga xam ne moo moo yor daayira bi ni ñu yoree fii itam noonu la ñu yoree armeel yi lépp lu ci aju morgue bi baqiyan organisation bu fa am lépp ci daayira bi la dellu siwaat moom itam ci déggalul sëriñ bi kon daal taxawaayu ci tënk comme jot amut te état bi mënut a yàggee noonu waaw danañ laaj ñu leeral leen li nga xam ne moo moo fi nekk di ko ñuy doxee noonu. salaamaaleykum wa rahmatullah donc euh, kàddu yi moom kàddu cant lay doon rek cant gu wér ci taxawaay bi nga xam ni ñëpp ngeen ko taxawal ci bërëb bi ak ci weer wi teewlu nañu bu baax liggéey bi aju ci weer wi ci boppam ci wàllu jàngale bi ci wàllu conférence yi ak ci wàllu euh, xéewal yi ngeen di jox jullit yi woor ba ngoon jot ñu war fee mën a doge ci lim bu takku man xamoon naa ni dina am organisation mais lim bi nga tudd ci ñi fi xéewloo loolu moom yéem na ma nan la ñu ko mën a organiser ak lana ci war a dugg euh, vraiment yéem na ma daal c'est ça c'est une découverte <laughs> leneen li xamoon naa ko mais bii moom lu ma lu lu lu ma yéem la taxawaay bi aussi ci organisation lu lu toll ni bërëb bi ak li ci aju ci wàllu sell ak ci wàllu set yooyu yëpp ngeen mën ko saytu daanaka loolu administration centrale la waaw loolu moom vraiment ñoo ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax di leen ci félicité di leen ci ndokkeel amoon na solo euh, tey la may soog a leere nii ci yaatuwaayu liggéey bi ak ci ak ci taxawaay bi ci wàllu programme bi nga xam ni programme permanent la maanaam lu ngeen di sax di ko def bis bu nekk ci lu jëm ci administration jumaa ji ak ci wàllu li ngeen jagleel weer wi ci ci boppam yàlla nañu suñu boroom bokk kàttanal ba lu mel noonu sax dàkk ñu koy mën di def di ci mën di participer jamono bu nekk incha allah